you.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 déposé woon ab plainte jëmale ko rek ci directeur général bu premier bet bi nga xamante ne rek lañ koy toppee mooy njuuj njaaj ak luuba lu toll ci 12 milliards de francs CFA yoo xamante ne rek ci atum 2021 nag lañ ko waroon a fay ñoom entreprise boobu nag fayuñu benn yoon impôt réew mi ginnaaw audition bi nga xamante ne rek jotoon nañ ko ko def nag ci kanamu enquêteurs yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci division d'investigation criminelle ki nga xamante ne moom mooy njiital patron bu premier bet bu Sénégal di wootu turu Joris Dunker daal dinañ koy teg loxo ndax ndax nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy policiers yi dañoo daal di defoon ab alerte ci frontières yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy naaw ci kaw jaww ji maanaam daal ñu nekk nag ci avion bi mu nekk mbir moo xamante ne rek jamono ji nag police jot na ko teg loxo ginnaaw rek bi mu doon bëgg génn réew bi di Sénégal ak njabootam ba na nag ci joxe boobu lee xibaar dañ ko yóbbu woon fi nga xamante ni moom mooy ci division d'investigation criminelle boobu ak léegi nag ne semaine bee jàll la woon waaye moom ci jëmi boppam dafa xamle woon nag dina fay lu toll ci 3 pour cent ci fu d'affaires bi nga xamantene nak rek ko dina ko fay lonage waye nak dal dina xam lek ne xamul won ben yon rek dafa wara fay nak li di app impôt ginnaw rek ba dik dal di topé nak document yi ba nopi dal di koy chambar ci lañu dal di gis ci rapport bi nak lu doy waa njuuj njaaj bi nga xamantene rek jot nako ko def ne nañu nag dinañu ko defere niki tay ci tarata ji ci kanamu procureur de la république du ñak dinañ ci ñëwaat ci yeneeni jotay xabar xabaar jëf ci and bi bu len fatte abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar